yéen mbokk yi topp seen site muslih tv point com seen bokkam daara Alioune Cissé mooy am mbégte di leen di leen nuyu di leen ziyaara seen jotaay bi ñu tuddee majaalisul fiqh ah, mu ci ànd ak yéen ah, ci téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu dawe woon nañu jëlee nag yéen lu tolloo fukki dars ci téere bi ah, fukki dars ak benn tey ñu war ñëw ak yéen suñu fukkeel dars ak ñaar biñ fiy mujj borom téere bi mu ngi doon jàngal sangu farata lan mooy farata yi lan mooy sunna yeeg ngëneel yeeg ci ci njumte gaar ak yépp leer la nañu ko tey mu bëgg a dikk ak ñun ci ki nga xam ne nag dafa am janaba lan la ko islaam di aaye waaye noonu tamit ak lu jëm ci ah, tiim ak lan moo koy waral ak ban jamono lay war ne ki loolu la ñu borom téere bëgg a jàngal tey mooy fi mu waxee ne laa yaxi laa yaxilu du dagan li junubin ci ko am jana ba neen daganu ci moom lan mun a duxulul masjid di dugg jàkka ki am janaba daal fekk sanguwut nee na daganu ci moom muy dugg jàkkaar waaye naka noonu wala xiraatul quraani daganu ci moom muy jàng alquran moom mi nga xam dafa am ba mu ne illal aaya lu toll lu dul lu mel ni aaya waaye naka noonu wa naxyuha ak lu niroog aaya li taawusi ngir muslu wa nax wi ak lu niroog loolu moom daal may nekk mu jàng lu mel ni ak lu mel ni ay aayatu kursi yeeg ak lu mel ni falex ak naase yooyu nga xam ne sunna dafa na ko léemoo gi ni mel yooyu nga xam ne daal ay musluwaay la may nekk mu jàng ko ngir waaye daal mënut a jàng alquran lu dul musluwaay ah, ay musluwaay gi ni mel daal lañ ko may mu def ko waaye nekk ne mu ne walaa yajuus du dagan li man laa yaqdir ci nga xam ne ñemewut attanut alal maa il barid ci ndox mu sedd maam ñemewu ko ah, an yaatee zawjahu muy dikkee soxnaam ki nga xam ne ñemewut ah, ndox mu sedd mi fajar boo dee julli ñemewut ndox mi ne daganu ci moom muy dikkee soxnaam maam muy ànd ak moom ndax bu dee ànd ak moom pare du ñemee sangu kook ne daganu ci moom muy dikkee soxnaam mu ne xatta yu àdd al al loolu dafa pare préparé jumtukaay boo xam ne bu paree amaan dana ci mën a tàngal ndox mi wala dana def ay pexe daal ba mën na sangoo ndox mi boobaa tamit dara li ko ci nee na waaye bu ko wóoree daal bu jotee ak moom da koy gàllan ko ba du mën a julli neen daganu ci moom muy ànd ak moom mu ne illa an yaxtalima fala shay ali loolu ne dafa dem ba gént gént loolu génn ci moom nag boobaa moom loolu pexe amu ci boobaa neen fala shay ali dara waru ci pare na ci loolu mi ngi dikk ak ñun ci tiim ban jamono lay war ni ki ak kan ma war a tiim loolu la ñuy bëgg a jàngal mu ne waaye tayam mu dana tiim almusaafir aji tukki fay xayri maasiyaati ci tukki moo xam ne nekkul tukki mooy yàlla tukki moo xam ne nekkul tukki mooy yàlla lu mel ne commerce wala lu mel ne dox ak jokk ak mbokk nga dox ci ba tumuraanke julli fekk la ci yoon yi amoon ndox nee na ko dagan na mu tiim waaye waxuñu nag tukki pour dem soirée wala yu ni mel yooyu nag moom daganu nit di ci tiim waaye nag noonu wal maridu aji feebar dana tiim li faridati ngir julli farata moom mi feebar dina tiim daal ngir julli farata aw naafilatin wala mu tiim ngir julli naafila moom mi feebar waaye nag ne mu ne waaye tayam mu dana tiim as saxiixu ku koo xam ne dara dalu ko waaye nag dana tiim ngir lan lil faridati ngir farata kañ mu ne isa xaafa su ragalee xuróoja waxti génn waxtu wa bu dee dafa ragal ne daal balaa balaa mu am ndox waxtu wa day passé boobaa daga na mu tiim borom ibnu asir waxoon na ne ki nga xam ne moom dafa naagu ne moom yaakaar na ne feeg waxtu wa di jàll du am ndox kooku day tiim ci njël njëlbeenal waxtu wa waaye ki nga xam ne dafay sikki sàkka moom ci digg waxtu wa lay lay lay tiim julli waaye ki nga xam ne moom nag moom am na yaakaar balaa waxtu waa passé mu kii moom ci mujj waxtu wa lay lay lay tiim kon loolu la ko borom ibnu asir leeralee waaye ki nga xam ne am na yaakaar ne balaa waxtu wee jàll mu mu balaa waxtu wee jàll dina am ndox mu teel a tiim kook bu wax bu ndox mi ñëwee day dem mu julliwaat kon mu ngi noonu moo tax mu ne isa xaafa su ragalee moom mi nga xam ne dara wéeru ko dara jotu ko su ragalee ne balaa am ndox waxtu wa day passé kooku day tiim nee na waaye nee na walaa yeta yàmm mu du tiim alxaadiru li naafilati ngir naafila waaye ki nga xam ne mi ngi teew nekk ci dëkkam dara dalu ko ne daganu ci moom muy tiim ngir naafila waaye nekk noonu wala juma jumaatin du caagi nag ah, ak jullit ajuma waaye nekk noonu wala janaasin du caagi nag jullit néew mu ne illa iza taayanat lu dafa ràññee ko alay ci moom aljanaasatu néew bi lu dul na ra néew bi dee bi tëdd dafa ràññeek ci moom mooy lan amaana néew bi moo dénkaane woon na diw mii na ma jullee mu nekk dénkaane gu bér wala lan néew bi ñu fi teew ji rek dong nga fi man a ah, jullee néew bi te am na amul ndox wala am na ngàntal ndox yooyu nag yu dul yooyu daal lu mel noonu daal bu dajee ci moom mën naa tiim jullee ko waaye bu dul loolu daal ah, mm, du ko jullee kon xam naa ko ñu ngi taxaw foofu ñëw jéem ko résumé waat ci nga xam ne baat yi teel na ko mu ne laa yaxil du dagan li junubin ci ko am janaba duxulul masjid dugg jàkka ku am janaba daal neen daganu ci moom muy dugg jàkka waaye naka noonu wala qiraatul quraani daganu ci moom muy jàng alquran mu ne illal aaya ndara lu mel ni aaya wa nax wiha ak lu niroog aaya li ngir lan mu ne li taam wasu ngir muslu wa nax wihi ak lu ko niro lu mel ni aaya daal lu mel ni falax ak naas ak aayatu kursi yooyu ni mel daal may nañ ko mu jàng ko ngir a muslu mu ne walaa yajuuzu dagan li man laa yaqdir ci nga xam ne ñemewut alal maa il baarid ci ndox mu sedd an yaatiya muy dikkee zawjatuhu soxnaam mu ne hatta yu'addalu dafa préparé al aala te jumtukaay boo xam ne bu pare dina ci mën a tàngal ndox ak yu ni mel bu dee loolu la nag boobaa dara nekku ci mu ne illaa an yaxtama illaa an yaxtalima lu dul dafa gént boobaa fala shay ali dara waru ci waaye ki nga xam ne nag jote naa soxnaam ba pare li islaam bëgg bu ko mënee na sangu ci guddi gi ci guddi gi bu ko mënee waaye bu dee mënu ko ah na jàpp waaye bu mu bàyyi boppam noonu jote soxna pare tëdd noonu loolu gënut ndax boobaa boo ko defee day mel ne beñe boo xam ne dañu ko teg ci kaw tali bi te muuruñ ko kon loo tayal tayal ba pare na nga jug njàppwaat ah pour jox sa bopp sécurité ndax njàpp lu am solo la ci guddi kon mi ngi noonu kon pare na ci loolu mi ngi ñëw jëm ci wàllu tiim mu ne faslun li ab tàqal la fi tayammumi ci tiim mu ne waaye tayammamu dana tiim a almusaafir aji tukki fay xayri maasiyati ci tukki moo xam ne nekkul tukki mooy yàlla waaye naka noonu wal maridatu aji feebar dana tiim li faridati ngir jullit farata aw naafilatin wala julli naafila moom dana ko tiim moom mi feebar waaye naka noonu waaye tayammamu dana tiim as saxiixu ki wér li faridati ngir jullit farata kañ mu ne isa xaafa su ragalee xuruja waxtiha génn waxtu waa dana moom mi nga xam ne dara dalu ko bu ragalee ne balaa am ndox waxtu wa day passé waaye naka noonu ne walaa yatayammam du tiim alxaadiru ki teew ki nga xam ne mi ngi ci këram demut fenn tukkiwu demut fenn nee na kook du tiim de as saxiixu tam wér la dara dalu ko li naafilati ngir naafila wala jumaatin du caage nag jullig ajuma wala janaisatin du caage nag jullig néew mu ne illa isa taayana ndara bu dafa ràññeeku xale yi ci moom aljanazat néew bi bu dee nag néew bi dafa ràññeeku moom mooy lan mooy amaana moom dong moo ko mën a jullee wala néew bi moo dénkaane moo sante woon moom kóllëre te moom fekk na amoon amaana ngantal mën a laal ndox wala yu ni mel boobaa nag dana ko mën a jullee kon mi ngi noonu xam naa kon ñu ngi ñëw doy lool di sant suñu caméraman bi nga ne moom lañu jàkkaarlool mooy Mouhamadul Amin Ndiaye ñu ngi koy bu baax naka noonu di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi di leen soññi tamit ñi di abonné ci site bi kon mi ngi noonu lépp loo xam ne leer na ci yàlla la waaye lépp lu ci dëng ñu ni di wax ak yéen la wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.